E, julli ci yonentam bu tedd bi di ar sallallahu alayhi wa ñu bokk sant yàlla buur bi nga xamante ne moo ñu yënkeewal baaxee ñu ci xéewal yamuy dottil suñu kaw waaye duñu deñ di ko fàttalantek mbokk yi mu doon xéewal joo xamante ne képp ko ko mën a natt doo ko mën a peek waaye mu doon xéwal ji nga xamante ne bu dee mënees nañ kaa lim ñu jukki ci ñaar rekk bu ci jiitu mooy xéwalu julli waxtu yi fajar ba mu baaxee askanu jullit ñi waaye bu dee ñaareeli xéwal ba mooy bi mu baaxee mbooleem mbindaafoon yamu bind te ñu bari ci mbindaafoon yi ñuy jëfandikoo ñaareelu xéewal woowu xéewal bu njëkk bu mu xéewalal askanu jullit ñi mooy xéewalu ibaada mooy xéewalu jaamu yàlla jamel ni waxtu julli fajar bañ doon julli waxtu su néew ci ginnaaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lam ñu ci baaxee ci bésu yowmul jumaa mu doon bés ki tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla xamal xam-xam bu kenn xamul ma yàlla baaxee la kenn amul yonent boobu di ar mustafa mustapha afdalu salaatu wa aska taslima moo ñu baaxee ci maana hadis mu ne ñu ngenil ba nekk ci julli suba bésu àjjuma rawatina ba nga def ci mbooloo bi moo tax mu ne ngenil ba nekk julli suba yow jullit bi yàlla xéewale la ko nga joxe waxtuy fajar ci mbooloo bi ginnaaw bi nga déggee noddukat bi muy noddu ne assalaatu xayrun min annawm julli ba leen di jokkaleeg seen borom de moo gën nelaw ba ngeen di nelaw nelaw ba ngeen nekkee julli ba leen di jokkale ak seen digganteeg seeni boroom moo gën nelaw woowu ngeen nekkee moo tax ñu dégg noddokat bi naan assalaatu julli assalaatu audience assalaatu jokkalekaay ju mel ni julli xayrul moo gën minan nawum nelaw bi ngeen nekkee di def kon yow jullit bi bu la sa borom bi tabaraka wa taala xéewalalee xéewal ju mel ni nga war a jóg waajalal sa bopp dem wuyu woote boobu bilaal bi woote ci jàkk ji nga nara am audience bu njëkk sa diggante ak sa borom bis tey di yowmul jumaa yonentu bi sallallahu alayhi wa am na lum la ci baaxee ne la afdalu salawaat inda salaatu subhi yowmul jumaa fi jamaati ki yàlla yónni di ar rasulul mustapha alayhi wa moo ñuy baaxe importance su julli suba yowmul jumaa ci mbooloo bi mu ne ñu afdalu salawaat waxtu julli ba gën indallahi fa yàlla salaatu subhi mooy julli suba yowmul jumaa bisu ajjuma rawatina nag bi def fi jamaati ci mbooloo bi maanaa bés ni tey di yowmul jumaa képp ku dégg noddkat bi nodd ba mu jeexal nga daldi waajalal sa bopp jàpp laablu nga daal dox sëq ab jéego dem joxe yi fajar woowu ci jàkka ji ci mbooloo mi yonent bi neena na sallallahu alayhi wa sallam yow mi def lii xamal ne jëf nga jëf ju gën a neex yàlla sa jëf waaye joxe nga waxtu yi julli ya yàlla fonk ci waxtu yi waxtu julli ba yàlla gën a fa moom mooy julli suba yowmul juma bisu aljuma rawatina bi nga def ci mbooloo kon ña nekkoon ci jàkk ji di remplir condition bu njëkk bi nga xamante ni mooy la leen yàlla tabaraka wa taala loolu bokk na ci jëf ju baax ba doomu aadama bi di jëf te mu neex ko moom yàlla mu xamal ko yonentam bi yonentu bi daal ñu ko baaxee salaa sallam mu ne ñu afdalu salawaatu indallah waxtuy julli ba gën fa yàlla mooy salaatu subhi mooy julli suba yowmul jumaa mooy bésu àjjuma bésu àjjuma képp ku julli suba ci mbooloo yonentu bi nee na yow mi def lii de xamal ne jëf nga jëf ju neex yàlla mbokk yi buñ ne la ne jëf ju neex yàlla mooy lii loolu nit ki jullit bi war naa xar tànk tubéyam war naa takk ndigam ba mu gis ne moo ngi def jëf juñ ne ko yàlla dakaa sopp ci jëfam ndax buñ la bàyyee yàq sa bopp rekk për nga xam ana wan jëf moo gën neex yàlla amaana doo ko mën a xam waaye bu fekkente ne yonent bi ñu ci yow sallallahu alayhi wa sallam ko baaxee kon war nga si war a mën a xar sa tànku war nga si war a mën a takk sa ndigg ba tax na yowmul jumaa di bés ni ki tey mu tombek juróom benni fan ci weeru muharram ñu di leen fàttali ne rek des na suñu diggante ak asura di fukkeelu fan ci weeru tamxarit ñeenti fan ñeenti fan moo des suñu diggante ak asura di fukkeelu fan bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala fukkeelu fan boobu ñuy séentu muy ñëw muy mël si di ñëw yàlla nañu fi fekk buy dem yàlla nañu fi bàyyi te lépp luñ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangoo amin ya rabbal alamin fukkeelu fan bi nga xamante ne moom lañuy ñuy séentu bés bu mag ci weeru tamxarit dañ ne des na suñu digganteeg fukkeelu fan woowu ñeenti fan buy ñëw yal nañu fi fekk te lépp luñ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu mbokk yi bésu arjuma bi di tey moy fukk mooy juróom benni fan ci weeru tamxarit mu tombe gàddaay yonentu bi sallallahu alayhi wa atum junne ñeen téeméeri at ñeen fukk juróom benn 1446 ans diggante gàddaay yi bi ak suñu jonni yàlla ji di tey moo tombeeg 1446 ans ñu nekk suñu njëlbeenu weer ci suñu at bu bees ba nga xamante ne mooy atum jullit ñi ñu di leen fàttali ñaan ba ñëw ci calendrier bi mooy almunaax ba ñuy waxtaan ak yéen ñaan ba ci nekk mooy yow jullit bi dañoo sopp ngay ñaan sa borom ñaanu yonent yàlla yunus alayhi salaam te mooy laa ilaha illa ant subhaanaka inni kuntu min adh-dhalimin bi di tekki mooy yunus alayhi salaam da di yonenti yàlla ba yàlla yónni woon ci xeetam boo demee ci suratul anbiya buur bi tabaraka wa taala mu ngi la fay baaxee ne wa zannuuna iz zahaba mugaadiban fa zanna an lan naqdira alayh fa naada fi dulumaat an laa ilaha illa anta subhaanaka inni kuntu min alzalimin yàlla buur bi tabaraka wa baaxe da doon baaxee yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko fàttalekul sa mbokk bi di Zannun di Yunus alayhi salaam keroog bu mu gàddaayee mu daldi génn dëkk ba ko yàlla yónni mu mere waa dëkkam mere xeetam mu daldi gàddaay dëkk ba nar a génn fekk génn ba mu doon génn nag amu ci woon ndigal daa mere waa dëkkam ndax da leen den woo ci wéetal yàlla ñu bañ ko ci wuyu mu daldi gedd waa dëkkam mere leen noonu mu doon dem la xewoon ci diggante bi ba gaal ba mu jëloon mu narkaa traversé loo géej ba mu doon bëgg a traversé ngir dem ci beneen dëkk ci diggante bi nag yàlla natt ko ñamu àndaloon ci gaal gi ñu daldi ko sànni ci biir géej gi waaye bañ ko sànnee ci biir géej gi nag njort ba mu amoon ba njëkk ba nag boobu daka naxoon moo tax yàlla ne yonent bi ne keroog buñ ko sànnee ci biir géej gi fa zanna an lan naqdira yunus alayhi salaam mu am njort ba toll ni ah fii moom jeex na say fii moom waxuma la kàttanu kenn waaye ah xanaa mu neex yàlla waaye même yàlla sax mbaadu waaw moo tax yàlla ne fa zanna an lan naqdira mu njortu ne amuñu kàttan ci melokaan ba mu meloo ci biir géej gi yunus mu njort njort bu toll ni est-ce mën na ma musal ci li ma nekke ni ah njort bi bu mu duggee ci xelam rek mu daldi xam màggaayu yàlla ci saasi moo tax yàlla ne xazan mu daldi njortu njort allah naqdira alayhi ne suñu kattan mënu ko fekk fii mu nekk ak nii mu nekkee waaye ci saasi rek yàlla daldi wulbuti njortu njort yunus alayhi salaam mu daal di woote fanaada mu daal di woote kam woote nag kookoo jara woo kamu woo kookoo jara woo allahu akbar ki bëgg xam na yunus woo ak ki woo nag ñu topp ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 yàlla buur bi tabaraka wa taala muy rencontel histoire yunus alayhi salaam ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci téere bu mag ba mu wàccee ci moom mu ne ko fanaada yunus daal di woote ku mu woo ak nam ko woowee mooy dane laa ilaha illa ant maa ngi seede ne amul benn buur bu fi nekk kudut yow yàlla laa ilaha illa ant amul benn buur bi fi nekk di yàlla kudut yow yàlla subhaanak mboolem xeetu set mboolem xeetu callaange mboolem xeetu callaange yu kawe yi ñeel nañ la yow yàlla gannaaw si nag mu daldi tuumal boppam mu ni inni kuntu min alzaalimin man sa jàmbi de maa fi nekk di doon kiy tooñ boppam saa waaw waa yow yàlla yaa fi nekk di yàlla mboolem xeetu cellaange ñeel na yàlla tudd sab sellaange yow yàlla man dama bokk ci ñiy tooñ seen bopp kon yunus alayhi salaam delloo na yàlla buur bi tabaraka wa mën-mënam ak sañ-sañanam ak nekkinam fi di yàlla mu daldi tudd sellaange ba yàlla yeyoo mu daldi di tudd sell yàlla waaye mu daldi tuumal boppam ne ko man dama doon jaam ju doyadi ba nekk saa ne di tooñ boppam kon yow mi di ñaan yàlla dafa bokk saa ne ngay tagg yàlla ci màggaayam donte matalewuloo ko dafa bokk ci sarta yi ñaan yow mi di ñaan nga xam ki ngay ñaan sañ-sañam ci yow man-manam ci yow kattan bamu am ci yow ak ci mbooleem mbindaafoonam yi nga delloo ko ko ci anam bu mu gën jekke waaye na nga dikkee di tuumal sa bopp sa gàttañ lu ya nga nekkee sa doyadi ba nga nekkee su ko defee nga nangul sa borom ne yow jàmbu loof nga waaye moom mooy buur bi nga xamante ne tëlewul dara su defee yonent yàlla yunus alayhi salaam bu mu ñaanee ñaan bi bu ñu demee xool ci suuratu saafaat dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa di wax yonentu bi waaye di waxaale xëytu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci téere bu mag ba ñu yore di alquraanul karim mu ne ko fa lawla annahu kaana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmin yub'asun bu nekkonte woon yunus nekku fa di tudd sama cellaange di ma woo ci woote bi nga xamante ne mooy laa ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin bu nekkutoon di tudd baat bi ci biir gën ba ko woon dama ko fa daan bay bi keroog may tukkil àddina waaye ba mu nekkee di tudd yàlla ci biir gën bi ci anam bi ni mel yàlla daal jox jaam jooju wonn yunus mu nekk jën ju ko wonn mu daldi ko jox ndigal jën bi daldi ko goqi ba tax na ñu ne képp ku nekk ci njaaxle képp ku nekk ci tiis bu dee yaa ngi tudd baat bi xam baat bi lu mu làmboo nga nangu ne yow jàmbu loof ba dëkkee di tooñ sa bopp nga mattalewuloo sa diggante sa borom dara amaana yàlla bu nangoo sa ñaan bi mun na laa jëlee ci njaaxle boobu nga nekk mooy laa ilaha illa ant amul benn buur bi fi nekk ku dut yow yàlla subhaanaka tudd naa sa cellaange inni kuntu min adh-dhalimin man sa jàmbo doyo bi de man sa jaambu doyadi bi de maa ngi nii nekk fi rek di kuy tooñ boppam saa bu duwutoon xettali ba nga may xettali du baax kon nañ leen bokk mokkal ñaan bi ñu ko ñaan saa su laa ilaha illa ant subhaanaka inni kuntu min adh-dhalimin mbokk yi ñaan bi la ko buur yàlla defal ñaan bi dayo bu mu am yan nañu ko yàlla boolee defal saa yuñ ko woowe yal nañu yàlla fekk si comme du mu fekk see yonti yàlla yunus alayhi salaam ci biir gën ba ko wonoon ndegem baat bi la doon tudd bi keroog yàlla jox gën bi ndigal ngir mu goxi ko kon yal nañu yàlla boole defal la di tekki amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmme yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ba léegi bokk na ci xéewal ba nga xamante ne moom la ñu yàlla yenkeewal mu nekk xéewalu ibaada ci bésu yowmul jumaa jëlee nañ xadis bi ci saxaabi ba ñu naan abi hurayrata radiyallahu an anna nabiya alayhi wa qaal inna awwalu maa yuxaasabu bihi al abdu yowma min amalihi salaatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad xaaba wa xasira rawahu nisaa'i wa tirmisiy mbokk yi jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi ñu naan abi hurayrata radiallahu anhu nee na naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu inna awwala maa yuxaasabu bihi al abdu min yowma alqiyaama min amalihi salaatuhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lu njëkk la ñuy lañuy xool di ko régler ci jëfu doomu aadama keroog bis pénc mooy jullim julli ba nga doon julli moo ne julli bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fa in saluhat bu jekkee faqad aflaha jëmm jooju texe na wa anjaha mucc na waaye nag ah bu dee xool nañ julli bi ñu gis ne wa in fasada bu julli bi yàqoo faqat xaaba yonent bi nee na kii toskare wa xasira kii moo perte hadis bi Nasaa'i ak euh, Tirmizi ñoo ko solo mbokk yi nañ leen bokk yaatal maana hadis bi tuuti ñu def ci taaliqaat xaw koo taaw yi tuuti mu méngoog waxtu su gàtt yan ñu cëralee ci waxtu wi ki yàlla yónni di ar mustafa mustapha sallallahu alayhi moo ñuy baaxee nañu lu njëkk lañuy xool ci jëfu doomu aadama bi keroog bis pénc mooy jullem kon duñu xool sa yeneen muamala ya ngay jëflanteeg doomu aadama yi du ñu xool sa yeneen jëf ya nga doon jëf comme xeetu jaamu yàlla yi lu ci jiitu mooy julli bi la ñuy njëkk a xool moom la ñuy njëkk a racle xool ko càmbar ko ba xam kon càmbar yàgg naa nekk fi de tey bu fekkente ne am na kilifa ñi nga xamante ne ñu ne dañuy càmbar ay mbir ya ñu dénkoon ay doomu aadama ñu xool seen doxalin ci mbir woowu ngalla waaye nañ leen leen bàyyi ñu càmbar mbir woowu xool nu mu demee ndegem keroog bés pénc yàlla buur bi tabaraka wa taala mooy càmbar di xool di saytu jëfu doomu aadama bi lu jiitu la yonent bi ne moom la ñuy njëkk càmbar di ko xool di ko saytu mooy jullem nee na bi bu baaxee julli bi bu fekkente ne antu na bu dee julli bi jaar na yoon yonentu bi neena ca dëgg dëgg dëgg dëgg faqad aflaha kooku mooy ku mucc wa anjaha kii mooy ku texe waaw am nga ñaari garaat ñu tabal la garaatu falaa ak garaatu najaax ñu tabal la garaatu mucc ak garaatu texe lu ko yóbbee julli ju baax julli bu correct julli bu jaar yoon julli boo xamante ne doo ko patam julli boo xamante ne doo ko taxañ julli boo xamante ne da ngay mattale takbiir bi day mat taxawaay bi day matt qiraatul fatiha day mat wa baadaha suura aw aaya day mat ruquu bi day mat rafau min day mat sujuud day mat wa day mat ila axirihi ba keroog julli bi di jeex allahu akbar xëytu julliwin bi képp ko julli après nga teg si ne julli de day dox diggante ki kay def ak lépp luy ñaawteef sa julli bi dox sa diggante lépp lu ñaaw sa julli bi dox sa diggante ak lépp lu bon su ko defee képp kuy julli julli bi ni mel kooku la julleem bi di ko njariñ mu di ko taxa rango badge bañ koy tabal keroog bés pénc garaadu falaax garaadu texe ak garaadu najaax ak garaadu mucc waaye bu fekkente ne yonent bi sallallahu alayhi nee na wa in fasadat bu di julli bi dafa yàqu julli bi dara baaxu ci dankay taxañ di ko def nga di ko patam patame di ko def wala nga di ko def ci anam bi nga xamante ne da ngay cumuler ñeenti waxtu julli yëpp daal di këpp-këpparal bo pare nga daal di ëbbali ne julli nga déedéet waxuñu façon julli boobu de julli julli ba nga xamante ne du dox sa digganteeg ñaawte waxuñu façon julli bi tamit de ndax yàlla moone ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli day tere kakawi def ñaawteef ak lu bon bu dee sa julli wulaa def ñaawteef xoolaatal sa julli bu dee sa julli terewulaa def lu ñaaw kon nanga xoolaat sa julli kon ki ñuy ragle sa julli ñu gis ne sa julli da nga patam-patame wala di ko taxañ yonent bi neena kooku la julleem yàqu te képp ku ñu xool sa julli bés penc mu doon julli bu yàqu yonent bi nee na faqat xaaba kii mooy ku toskare wa xasira kii mooy ki perte kon képp ku bañ toskare képp ku bañ a perte keroog bés pénc bu ñuy càmbar say mbir ñu tàmbale ko say julli ngelawaay ci kanam tuuti ñu ngi nii di dem julli waxtuy jumaa na nga fas yéene julli julli bu correct à di tey takkusaanu arjuma bi nga teg ci julli bu normal timisu arjuma ji nga teg ci julli bu normal géewe bi nga teg ci julli bu normal su ko defee nga jàppee ko noonu ëllëg sa nga def ko nii nga jàppee noonu sa dundu bi yépp julli ya ngay julli na lépp mat na lépp jaar yoon ndax looloo tax yàlla bind la la kër kër di ko xemem di ko ut loolu taxul yàlla bindi la la tax yàlla bindi la mooy wa maa xalaqtul jinna wal ins dara taxut ma bind jinne yëg doomu aadama yi lu dut illaa li la yàlla wa lu ñu jaamu ma jaamu yàlla jooju noonu nag mooy wéttal ko bañ kaa bokkaaleeg dara bañ kaa bokkaaleeg len boo ci noppee nag julli bi nga xamante ne mooy dox sa digganteeg sa borom julli bi nga xamante ne mooy doon échelle mooy doon pon mooy doon bum balay jokkale ak sa borom julli jooju yonent bi moo ñu ne mooy lu njëkk la ñuy càmbar ci jëfu doomu aadama keroog bis pénc bu julli bi jaare yoon nee na kooku mooy ki texe mooy ku mucc ñaari garaat lañ lay tabal garaadu falaax ak garaadu najaax waaw ñu tabal la garaadu texe ak garaadu mucc texe nga mucc nga waaw texe nga yàlla boole na la ci jaamaam yu texe ñi ñooñu ñooy kuréel yay tabbi jan mucc nga mooy musal na la mbugal ba muy mbugal ñeneen ñi ña nga xamante ne dañ kaa weddi topp ñu santaane kon ñaari garaad yooyu julli ju normal julli bu correct moo la koy tax a fàgguloo waaye yonent bi nee na wa in fasadat bu dee julli bi yàqu na ah faqad ca dëgg-dëgg-dëgg kooku mooy ki pert kooku mooy ku toskare moo tax mu xaaba wa xasira kooku mooy ku torox mooy ki perte ki nara toskare kerk bés pénc ku ñu xool sa julli ñu càmbar ko ñu gis ne amul dara lu ci baax waaye képp ku nara faggu garaadu texe ak garaadu mucc keroog bés pénc kooku mooy kan mooy ki nga xamante ne julleem baax na julleem bi correct na jaar na yoon kon yow mi nga xamante ne da ngay rencontre sa boroom ci bés bi juróomi yoon mu ñu di ko jaarale ci julli nanka xoolaat bu baax ba xam yaa ngi defee comme nañ la ko sante est-ce que yaa defee comme nañ la ko waxee naka la ko yonentu bi jàngale est-ce defee nii bu fekkee ne noonu la waaw kon ñu sant yàlla ñu bokk waa alhamdulillahi rabbil alamin bu dee di noonu nag kon nañ leen géem a gëstu na yonentu bi digle ni noonu la julit bi war a taxawee ci kanamu boromam mu di ko jullee su ko defee buñ ko julee noonu ah keroog bés penc ñu tabal ñu garaadu falaax ak najaax yàlla ñu ko yàlla yombalal yàlla ñu ko buur yàlla kattanal mbokk yi lii la leen réew mi TV réew mi FM andil tey ci waxtaanu fajar mu tombeek juróom-benn fan ci weeru muharram ñu di leen fàttali ne rek des na suñu digganteeg ashura di fukkilu fan wi ñeenti fan walla juróomi fan ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulata umuurina allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin wa kullu aamin wa antum bi xayr taqabbal allahu minna wa minkum saalihu acmaalana baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani alcadiim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri al hakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu